Euh, ce partenariat naka la naka la juddoo ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa 1xBet naka la ñu def pour convaincre la vous en tant que ambassadeur du football africain du football international mun nañ ko wax euh, double ballon d'or africain mun na ñëw fekk si leen ci li nga xamante ne moom mooy euh, cette aventure là. am na ñoo xam ne xaw ma ndax bëgg na nu ma wax seen tour si télé bi wala parce que mm. yana ñoo xam ne dañ leen di wax les hommes ou les femmes de l'ombre et wan xbet dafa am foofu benn xale bu jigéen bu mag la sax mais mën naa wax ne xaren bi moo tax ma koy wax xale bu jigéen boo xam ni euh, moo def moo tax lii lépp am te bi mu ñëwee tamit euh, discours am waxam at fi mu bëgg yóbbu tey jii wan xbet ma ni ah kii de du ma mën def lu dul liggéeyeen moom et bi mu ñëwee aussi discours bi at projet am at jàppale la jeunesse sénégalaise africaine et jox nit ñi chance aussi pour ñu mën di gagner parce que euh, looloo tax ma àndat moom di wax rek ni bu mu ñëwee ba ci man tamit ma vendre le produit mhm. qui déjà vendu ndax tey jii man bi may xam 1xBet c'était tout au début c'était moom njëkk nekk premier sponsor Manchester City donc pour vous dire rek ni euh, euh, bi mu ñëwee ci man waxtaan nañu mu wax ma ay projet ma wax lan laa yéene sama jeunesse lan laa bëggal sama jeunesse lan laa bëggal aussi les sénégalais du Sénégal et de la diaspora et looloo tax tey jii ma àndan moom et je crois que aujourd'hui euh, moom gaynde si li muy liggéey xam nga ko bu baax a baax. Mhm. bu fekkee tamit xaw ma ndax bëgg nañu wax turam. bu ñuy wax turam tamit yow yaa koy wax. gaynde la si li muy liggéey. Uh-huh. macha allah ndax ba mu nekkee ci yéen ci kaw ngeen nekkoon. ba tey yéen a ngi nekk ci kaw ba mu fa jógee tamit dama wan xbet One Xbet gën na nekk ci kanam. je crois que Adman je crois que on forme le le le le le très bon duo. le duo de choc.